proposa. la radio citoyenne. UCAB FM, nous sommes ici la radio au service des populations. yi fii si UCAB mbokk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi fii ci ndaam daaru alimul xabir xibaaru digg bëccëg la gën a fes ci xibaar yi hôpital bu Ndaamaatu wootoon ab bis bu doonu ko doon waxtaan rek lu jëm ci wàllu cancer bu ci njurukaay di bis bu dañ doon dalloo ab mu doon koy ci foofee nga xam ne kon moom moo di bërëb bu foofa la ñu dalal ah, soxna yi amee rek ah, soxna yu wérul a ah, coow la amoon ca ngay ñi xam ne kon ñoom la seen doom faatoon kookee nag nekkoon ca toolam ñoom jéggalu nanu waaye tam sàkku nanu eh, ci kilifa yu nguur gi ñu wutal ay matuwaay waaye tam taxawu leen ba eh, seen sàmm googa ñu mën ko amal ci anam boo xam ne rek eh, genn tooñ bi jam ci fenn lañ ci yëkkatee kàddu nañ ko teelu ci jotaay ak xibaar yi lu soxal diggante Xuddaamul ak police bu ndaamatu waa ay yes doon kuréel gu dafa jiite ay doomi soxna ñoom nag àddu nañ ca sëriñ maam Cheikh Mbacke lam ca àddu danañ ko teelu ci jotaay xibaar yi ci wàllum politique ñi nga xam ne ñoom ñoo di républicain yi nekk ca département bu Njaareem daje nañ foofee nga xam kon euh, moom moo di ca Ndullo loolu nag doon waxtaane lu jëm euh, ci wàllu ko taxawaay bu nemmeeku nanu ko ci wàllum politique ak njiitu réew mu euh, président Macky Sall moom rek la ñu bëgg a jàppale lu jëm ci wàllu wole la nga xam ne kon jot nañu koo àddu rek danañ koo ci biir jotaay ak yi mbokk yi li gën a fës ci yéene kaay yi moo nam këmal li nga xam ne kon moom di jotaay bi ni suut rek ñu dikk ak ci faram fàcce gi ci ci 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndam Daaru Alimul Xabiir xibaaru digg ba xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye Pape Sayar mbay ci àddukaay gi ak ci wàllu machine bi yéen askan ci déglu bi rajo UCAB 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom rajo université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi tey ji kon di euh, al tey ji di gaaw di ñaar fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru ko ñaar fukk ak fan ci weeru tubaab di octobre atum 2022 dëppoo ak ñetti fan ci weeru euh, wolof di rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent ci gàddaay gi waxtu wi jamono ji ñu ngi ci quatorze heures di ñaari waxtu yu toog tegal fanweer ak ñeenti simili rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru dégg bëccëg bi groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabir xibaaru digg ba gi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba dañu koy doore ak coow la amoon ca ngay loolee nag doon xeexoo yu doxoon ci digg sàmm ci diggante sàmmkat ak baykat lu jëm ci wàllu woowu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy mbokk yi ki nga xam ne kon moom moo faate woon ñoom nag yëkkati nañu eh, seen ay kàddu ci jotaay taskatu xibaar bu doon nañu ko amal ñoom nag yëkkati nañ seen ay kàddu njéggalu eh, ci loolee nga xam ne nag moom moo fa xewoon waaye tam sàkku nanu eh, ci kilifa yu nguur gi ñu taxawu leen waaye tam ba eh, seen liggéey boobu la ñu amal ko ci anam bu mucc ayib la nga xam ne jot na nañu ko ca fésal ñu àndandoo teewlu kàddu yi nga xam ne kon jot nañu ko. ndax julit su amee ku wàññeeku. yurala mooy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoo ngi. nuyu le xalif général de Mouride ñu ngi koy sant ñu ngi nuyu xalif général de Baye ak suñu xalif général Mouhamed Ali Sow bu Diegane ci seen taxawaay surtout xalif général Mouride won nañ ne nitu jàmm la li xew nag génnaluñu yàlla bu mu fi amati yàlla bu mu fi amati eh, ñoo ngi koy jaale Serigne Mbacke njaay Serigne Mbacke njaay de rencontré naa ko plusieurs fois wante li ma mën a te témoin ci moom mooy nitu jàmm la lu fi doon xewit daan na ma woo mu ne ma abu ci wax li xew nag miti ñu ngi koy miti lu fu miti lu yem ñu ngi koy jaale ay mbokkam ñu ngi koy jaale suñu boppit ndax suñu mbokk la suñu doom la di ñaan yàlla lu mel ni yàlla bu mu fi amati wante ñu ngi sant maa ngi ja delluwaat di sant xalif général bu murid di sant xalif général bu Baye Fall ndax woote nañu jàmm jàmm jooju ñu woote fekk si fekk si nañ la jàmm yooju lañ soxla ñun massawu leen te lii xewit ñu koy jégglu ñu koy tuub du lu ñu neex ndax man mii di wax de sama jarbaat moom la yàlla dogal yëf fi ko man maa woo force de l'ordre man ma interview maa woo commandant brigade man maa nga dëkk foofu kon man lañu ñu woo man maa woo commandant boobu ba léegi itam force de l'ordre bi ñu leen di ndax def nañ fi liggéey bu am solo ndax su woon ñoom taal nañu fee kër de juróom-ñaari nekk wante su du woon ñoom village yëpp la taal te néew yi dina bëri ante alhamdulilahi rabbil alamin kon man maa ngi wax itam ci kaddu Cheikh Mouhamed Ali xalif général bu Diegane ndax sama nijaay la woote na fi dafa fekk mu génn neena nañu woote jàmm nañu dal te tënku ci ndigal booba nga xam ne sëñ Muntaxa joxe na ko xalif général bu Baye Fall joxe na ñun ñu ngi tënku ci ndigal googu mooy jàmm ak wante ñu ngi ñaan état bi ñi nga xam ne seen compétence moo ci seen loxo la ne ñu taxaw ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi ndax fi àll bi amul foore bu ñuy sàmmi ñu ngi ñaan autorité ñu taxaw ci ñi ma jiitu muy chef de village ak ñi jëkk wax jaar nañ ci jarul ma ci jaar yëf ni mu deme nee nañu netti la xuloo xuloo lay indi man sama kaddu mooy ñoo ngi tuub ñoo ngi jaale kii dem ñoo ngi ñaan yàlla bu mu fi amati ñu ñaan lii bi mu fi amati yàlla bu mu fi am ñu ñaan justice aussi lii li xalif général Baye Fall woote mooy yoon taxaw ci ñu itam loolu rek lañu sàkk mooy yoon def liggéeyam su ko defee ñëpp kontaan jàmm am yoon it taxaw ci lu mel ni bañ fi amati. Serigne Mbacke Ndiaye maa ngi lay jaale xale bi wàññeeku wallahi suñu njaboot la wallahi yàlla di moo yor ndogalam mooy dogal waaye ki rey ak ki rey ki ñu rey man ñun kenn benn nit lañ ko jot histoire nag am na histoire nag bu amee jàppante am foog am pour ku gañe waaye nag kenn benn nit moo xeex njaboot ji benn la kon mm, ñoo ngi koy jaale. Serigne Mbacké Ndiaye yàlla na mottali ndawam ci àjjuna wallahi doon suñu sago bu noon suñu sago jàmm bi ñu eh, relation bu rafet bu ñu seqoon nii moom mooy continuer ndax moom lañu fekk kon nag buñu sañoon suñu suñu ay gi euh, suñu génération bii lii du fexe waaye nag yàlla ak dogalam yàlla ak dogalam moom mooy dugal ñu ko neex bu loolu weesoo maa ngi sant force de l'ordre yi taxaw fii nii maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax bu dul woon ñoom foog naa ne kenn mooy dee ñu baree bari ñoo fi dee gannaaw ay jàmm ñun daal jàmm la ñuy ñaan jàmm lañ ci soxla xam nañu nag ñun ñoo tooñ bakkan dafa foor wallahi ci mën naa wax sax est-ce que ki dem taniwul ki fi des ndax bakkan ñun ñëpp xam nañu ah, sama kilifa yi taxaw ni sama gannaaw lu ma ci war a wax rek ñoo ma ko gën a xam ak yóbbu bakkan ñu foore waaye nag yàlla moo dogal loolu suñu sago de kon nag ñu ngi koy masu di ko jaale bu loolu weesoo euh, ñu ngi ñaan autorité gannaaw ñun ñoo dëkk euh, ñu ngi ñaan mu ñëw mu defal ñu organisation boo xamante ne lii dina fi géej même bu dakku tamit dina fi géej mooy ñu wutal ñu place boo xamante ne fii moom palace pour sàmm la fii place pour mbéy la dinaa ci lim ñetti mbir yi ma ci yi ma ci mën a lim ndax gannaaw temps benn bi mooy li njëkk mooy saawo si nañu yaatal saawo yi saawo yi am na saawo yoo xamante ne mm, yaatuwaay bi motul sax motul sax cinq mètres motul sax cinq mètres waaye cinq boo ci naree jiital ay quatre vingt wala cent ay nag téeméeri nag wala juróom-ñett euh, fukki nag nga dugal ko ci distance boo xamante ne motul cinq te bu jaddee ci tool ruur la ruur lañ koy considérer ndax dañu faral di wax tool di fekki nag nagay fekki tool dëgg la waaye am na tool yu fekki nag ndax saawa ku ko béy ku ki béy eh, fekki nga nag eh, bu leelu weesoo mooy déeg yi fi nay war a naan fi nay war a naan war na am distance boo xamante ne nay bu ñu naanee bu ñu génnee ci déeg duñu dugg ci tool bi waaye am na déeg yoo xamante ni mm, bu ñu ko jot bi may woon mën naa leen ko woon diggante fii ndox mi di taa ak fii tool bi di eh, yem motul sax 10 nag warul dugg ci tool tool nekkul pour nag tool pour béy mu góob yóbbu ndax borom nag bi ak borom tool bi presque ñoo ci yem kon nag bu tool ak mbooy moo fi am li laa war a suuli nañu béy mbooy ak jur yi waaye dinaa béy sama tool dinaa tere sama mbooy ak ah, kooku problème lay indi te nag nag yi mënuñu leen aj ci kaw bi mënuñu leen def suñu teere nag yi ci kaw suuf si lañ lañu mën a jaar kon nag loolu tam ñu ngi koy ñaan autorité ànde yi dama xëy naa pour dem tool ñoom xëy nañ pour sàmmi toog naa nekk ba ay weer midi yooyu dégg naa ay nag yuy jooy ma def nii gistu xàmmee ko ndax samay nag la sama jarbaal la ma ne lii dëti jàmm parce que ba ma doon dëkkee ci machine moom laa obligé tekki fas wi war ko di dowal di dowal ndax kar na yi xam naa li problème la waaye heureusement avant may egg ci nañ attaqué nañu booy bi booy bi tamit aussi booba doow na na ba sonn doow na ba sonn ndax yéen fi ñu ma ko dàqee ak fi mu fi mu taxawee nii man de mënu ma ko doow man mi mënu ma ko doow te li ko ko may mooy dafa nekk xale mu doow distance ba tollu noonu dégg nag doow na ba ya ba sonnoon na taxaw la maa ngi euh, jano ak ñoom lu xaw a sori tuuti wallahi yàlla moo tax may wax maa ngi leen di aj loxo bu leen def bu leen def xaar leen ba ma ñëw bu leen def xaar leen ba ma ñëw heureusement ba bi ma laata fii li xew di leen xamale itam affaire bi am na affaire bi mu amee ànd naag sànda mooy ba fi ñu boom ngóor si ngóor ko boom soriwul mu ngi nii ci xur wi mag sànda may ñoo fa ànd ak chef du village Touba Fall moom seere seere na ci waaw biñ ko boomee pare ñoom dañ ko jël teg ko ci sareet indi ko ba ci tool ba ñu teg ko fa hmm. kon nag man lii sama warugar ak li ma ci war a wax lu dul dëkkandoo jàmmaa ca gën leneen lu ci waay mën a wax bëggul jàmm ñun sunu kuddu jàmma la ràcc nun nag ñoo kon nag ñun biñ gaañee ba pare ñoo ngi jéggalu di jég ñaar jàmm njëggal bi jëm ci kanam sëñ mu sëñ Muntaxa yàlla na fi yàggati bi ñu koy ñaanal bu baax a baax loolu doon ñenn kon ci ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di njabootu kookee nga xam ne kon moom moo cor borom tool ba mu faatu ñoom nag eh, kàddu yi jéggalu na nañu ko waaye tam eh, di sàkku rek ñu gën leen a jàppale ba seen liggéey boobu lay gën a ñoom mu doon jotaay taskatu xibaar bu doon nañu ko amal mbokk yi ngeen di wéy di ñu topp ci 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg ba ci gi ñu wéyandi. rajo UCAB FM. 63.5 téeméeri ñett yu tombal juróom rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci wàllu ko wér gi yaram ak euh, waa kër docteur di hôpital bu Ndamatou ñi doon amal ab jotaay ngir rek waxtaan ak askan wi ci lii di cancer ko butitu njurukaay wala cancer ween ñu ko fotoloo nag ci weer wi nga xam ne octobre la muy octobre rose doon weer wi nga xam ne kon jàngore cancer moom la ñu ko jagleel di ko màggal mu doon bés bu nag waxtaan nañ ci ak askan lu jëm sax ci wàllug soxna ak taxawu ga jot nañu rafetlu lool taax mi nga xam ne kon moom lañ doon doon dallu doon rek ab annexe ci ko doon yokk ci service gynécologie ba nekk ca ndaamaatu ñu ne taax moomee dana leen dimbale bu baax ci wàllum paj mi ndax nag eh, lu mu néew néew fanweeri lal yokk na ci seen barab boobee te nag bu njëkk ni nga xam ne ko noonu daan dalle da ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu woowe xam lañu ne ne lu mu néew néew ñaar fukki soxna danañ fa mucc bis bu jot foofee ci hôpitalu ndaamaatu docteur Mamadou Sène moo jiite service gynécologie bu nekk foofee ci hôpital bu ndaamaatu lam ca leeral ñu àndandoo teewlu ko. xam nañ ne fii euh, population bi dafa bari euh, ñi nekk n'est-ce pas di matu nekk euh, en nekk en âge de procréation donc bari na lool ba tax na suñ euh, fi defee donc annexe bu mel nii nga xam ne ne dina permettre ñuy saytu feebar yoo xam ne ne euh, dafa mën a jëm ci cancer wala également dina permettre euh, ñu mën a s'orienter njur yi mais également dina permettre ñu fi man di hospitaliser ay malade donc loolu dina yokk capacité wu malade yu ñuy jël war leen a mën a topp toppatoo parce que donc salle d'accouchement ba vraiment xam nañ te yëg nañ personnel bi xam nañ ne ñoom foofu dafa metti woon lool parce que ñu doon wasin foofu lañ doon ne ñoo xam ne ne wasin nañ ba pare foofu lañ doon ne waaye ñoo xam ne ne seen seen ëmb dafa ëmb dafa ànd ak ay jiraawaay tam foofu lañ doon foofu lañ leen hospitalisé kon donc du suñu ubbee annexe bi daf ñuy permettre fi nga xam ne ne foofu la lu ñuy wax grossesse yu ànd ak feebar suñ doon yooyu dina permettre ñu ubbi benn benn ñu ubbi ay salle pour mën leen a accueillir mais également dina permettre salle boo xam ne ne fa lañ doon accueillir ñu opéré ba opéré ba pare ñooñu mën a ñëw ci fii annexe bi su ko defee donc salle boobu ñu mën ko ñu mën exclusivement ñoo xam ne dañoo wasin ñu war leen a toppatoo ñoom ak seen i ak seen i doom loolu dinañu permettre vraiment ñu mën leen a toppatoo bu baax a baax au niveau de la salle d'accouchement mais également dinañu permettre ñu mën a toppatoo bu baax a baax ñoo xam ne dañoo wasin bu pare mais également toppatoo seen i doom yi comme ñu ko normes yi diglee kon donc ubbitu annexe bi nekk na loo xam ne ne daal vraiment dina ñu dimbali bu baax a baax a baax ci liggéey bi dina jàppandal liggéey bi parce que dina tax ñu gën a féex a xam lu ñuy def gën a gis lu ñuy def surtout au niveau de la salle d'accouchement mais dina tax aussi donc référence yi doon def ci yeneen hôpitaux yi également dina wàññeeku parce que capacité bi vraiment yokku na ci lu toll ñaar fukk jàpp fanweer yi fanweer yi lan par jour mën na nañoo dem ba ñaar ñaar fukki accouchement loolu xam naa ne bariwul ci Sénégal moom dëgg-dëgg par jour nga mën a am ñaar fukki accouchement yaakaar naa daal fii fii la daal wala fii ak euh, fii Maguilène Senghor daal ñun ñaar daal xam naa ne bokk nañ ci maternité yoo xam ne ne suñu activité moo gën moo gën a moo gën a soutenir cancer du col de l'utérus mooy cancer cancer buntu butit jurukaay voilà cancer boobu moom bon xam nañ yëg nañ ne donc bari na Sénégal mais également bari na donc fii Touba parce que li koy wane rek wala li koy li koy li koy indi bokk na ci xam nañ ne fii jigéen ñi daan nañ dañuy teel a sëy te loolu bokk na ci facteur de risque yi mais également polygamie bi ak aussi donc infection bi yooyu yëpp bokk na ci yoo xam ne ne donc euh, dina leen exposer donc pour ñu développer donc cancer donc du col de l'utérus c'est pourquoi tam ñun depuis donc années gis nañ ne loolu donc taxaw ci donc dina am solo lool lool lool ginnaaw nekk na feebar boo xam ne ne ah soo demul seetlu ko yenn saa yi mën ko koo am sax ba mu jéggi dayoo te que doo ko yëg donc te li muy jël ci ay moyen pour nga mën ko faj dafay bari te mën nga am moyens yi sax mais li muy li muy li muy yàq ci sa yaram dafa ëpp moo tax dal saytu ko toppatoo ko ci bi nga xam ne ne mën nga di dem demal sa bopp di ñëwal sa bopp donc loolu dina am solo loolu moo tax vraiment boo ko ñu def fi unité bi de dépistage bi. bon conseil pratique yi ñuy joxe daal en général en premier temps moo mooy euh, fexe ba aussi donc euh, teel sëy yi ñu. ñu ñu ñu ko waaye itam fexe ba aussi donc lépp loo xam ne donc nekk na ay màndarga infection moo xam donc ay perte moo xam mettitu nag donc nit ci teel a ñëw hôpital ñu def ñu xool ko euh, su ci waree ñu def ay prélèvement donc mën a xam donc lan moo xew pour ngir mën a faggu bu baax a baax a baax donc feebar boobu mais wax ne ne également vaccination boobu donc am na maanaam donc euh, ñàkk yoo xam ne ne xale jigéen bi su ko ñàkkoo donc mën na ko mën na koo aar ci feebar yi cancer yooyu à partir de neuf ans euh, à partir de neuf ans rek xarit mën na ko mën na ko jël te voilà donc à partir de neuf ans donc mën na ko jël su ko defee donc dina ko mën a aar bu baax a baax ci feebar boobu nga xam ne ne wax dëgg fa yàlla mi ngi fiy def ay ay loraange d'autant plus que ñun xam nañ Sénégal yi mel noonu su ko amee rek yenn saa yi dafay tànn ñu ci bëri dañuy tànn toog ñàkk wéetoo yi loolu itam euh, am na solo lool loolu doon leeralu docteur Mamadou seen mi nga xam ne kon moo jiite service gynécologie ba nekk ca hôpital bu Ndamatou mbokk yi ñu dellusiwaat ci coow li nga xam ne moo dox ci diggante police bu Ndamatou ak waxu Xudaamul Xadim waa AIS àdduna lu ca ay AIS nag mooy kuréel gi lëkkale ay doomi soxna euh, seen njiit di Serigne Mame Cheikh Mbacke moom nag àdduna ca mu ne bu ñu dégloo wax ji rawatina wax ji nga xam ne commissaire Thiombane yëkkati na ko ca nee nag ci genn wàll mën na caa ànd ak moom muy rek ñàkk euh, wormaal doomu aadama bi xotti wormaam waaye nag la mu wax rek nen luwaay réew mi bokkut ak luwaay dëkk bi loole nag mu ne ab code la ab luñ ca mën a dégg la moom kii di Serigne Mame Cheikh Mbacke njiital AIS kaddu yu yëkkati na ko ca jëm ci fànn woole la nga xam ne kon jot nañu ko ca taataan jëm ji rek ci wàllu ko coow li nga xam ne kon ci fàttali moo dox ci diggante euh, kuréel gi di xuddaamul xaddim ak euh, ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di euh, police bu ndaamaatu rawatina njiit la di commissaire Thioban ak kàddu yi nga xam ne kon jot na ko caa yëkkati sëriñ mi nga xam ne kon moom moo jiite ay kàddu ci loole nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko coow la lam ca àddu moom sëriñ maam Cheikh Mbacke ñu àndandoo teewlu kàddu yu yëkkati na ko ci mbir mi eh, xam moo dox ci diggante ko daamul xadim ak police bu Ndamaatu. ñu bëgg ñëw rek indi kàddu ci coow li am ci Touba muy commissariat ba fa nekk wala boog commissaire Thiombane mi nga xam moo yëkkati ay kàddu jëmale ko ci eh, ci ñaari kuréel yu mag yooyu nekk Touba muy Safin Amara ko daamul xadim Euh, kii wax ak yéen day fàttali boppam xam na xam ngeen ko sax muy maam Cheikh Mbacke Khadim Awa président de l'AIS waaye en même temps président association des serviteurs du patrimoine Cheikh Mbacke Khadim mais xam ne gannaaw bi ñu taxawalee AIS ci 2015 ci lañ wax suñu biir ne kenn ku ne delloo am pencam nag mu fas yéene faa taxawal kuréel goo xam ne danay e, sàmm foofa di bay ngir ñu daje ci penc mi te yaakaar naa yàlla muñ ko digër waa andira enchidaka aqrabina alof di alof Njaay di ko wax ne bay ci sawu tànk moo tax ñu joxoon kuréel googu jamono si doon Muxtaar Mbacke Euh, yaakaar naa ñëpp gis nañ lépp lu xew ci Touba ci yoo xam ne dafa ay jadd-jadd la gis nañ yëkk nañ suñu kàddu ñuy wax ca ba ni nga xam ne noonu lañu àndiwaat dajale kuréel yëpp nag def ko benn fédération tafu ci xuddaamul xaddim nga xam ne si am sa monsieur Abdoulaye Mbacke moo ko jiite euh, kon lii nga xam ne déglu nañ commissaire Tombaan wax ko euh, Alof Ndiaye day wax ne nit bu waxee faaw nga déglu ko nit it bu waxee la mu wax lépp duñ ne dara du ci dëgg waaye la wax lépp duñ ne lépp gong ah kon bu ñu dégloo commissaire Thiombane ci li wax li nga xam ne benn côté man danañ wax ne am nañ càag moom muy xotti war may doomu aadama xotti war may doomu aadama moom yaakaar naa képp ku jàng lislam jàng diini xam nga ne yentu salance dafa ñëw ne ak daruriyaat xams mooy yàlla da koy yónni ngir mu sàmmal nit ñi seen juróom yi sàmmal leen seen diine kon diine njëkk a jiitu sàmmal leen seen nafsu ba kenn du ko faat ci lu ci lu dëgg waaye sàmmal leen seen seen der mooy seen dignité kenn xot kenn wër xot seen worma sàmmal leen seen alal waaye sàmmal leen seen li nga xam ne mooy seen nasab mooy seen seen seen askan. kon bu ñu déggee commissaire Thiombane ci biir discours mu wax ne euh, ci biir Safinatoul Amaan wal Xudaam dañ jàpp ay nit di leen filmer ak di xotti seen war ma loolu moom yaakaar naa dindu <laughs> dundu diine moom <laughs> boo ko déggee doo ko defal même ku dundu diine ñaar xaqalu salim xel mu sell rek waru ko nangu kon foofu mën nañu wax ne am nañ jàng waaye noonu tamit euh, mu amee ci bu fekkee wax nañ ne loolu amee damay jàpp ne sax. Euh, ñi nga xam ne ñoo jiite xuddaam ak jiite safin aman muy ñu xam leen ñu ay boromi xam-xam ak ak ak ñu nekk ci biir euh, ñooñu euh, digluwuñ mukk kuy dem jàpp ni di ko filmé ngir di ko tasaare dëggal nag la sëñ Abdoulaye Mbacke rek doon rek téeméeri nit téeméeri xar bokk boo len de sàmm wen yat man waaye téeméeri nit kenn ku ne ak wetam mooy doomu aadama bi kenn ku ne ak xelam kenn ku ne ak ak ak ak nam cee xalaat ak nam cee doxale kon kenn ku ne fa mu toll ngay wax donc kon jàpp nañ ne ñiy def lu mel noonu bu fekkee am na ci xuddaam wala am na ci du seen i kilifa ñoo leen ko digal mi ngi mel rek police manifestation bu amee wala des fois ñu monté sax da gis euh, ay vidéo yoo xam ne dañuy gis ay policiers yuy toroxal ay doomu aadama di leen di leen pes bu dee manifestation amee ñu rey ndax loolu dañuy wax seen i kilifa ñoo dañuy taxaw entre waaye bu ñu jëlee si nag li nga xam ne nag euh, comman dëxëñ ne ko ci biir wax commissaire ah mbokk yi tiit jot na tiit nag ci ki fiir ci Touba. ci ku fiir ci lu baax ci ku xam Touba na muy doxe ba ni combaan yëkkati kàddu ku xam tuuba lañ fay aaye ak lañ fa bañ ba nii combaan yëkkati kàddu te loolu combaan moo mujj ñëw état ba mu samp yàgg na gendarmerie moo njëkk dugg Touba waaye yeex na ni ko si am sa Abdoulaye Bat sa ñam si Abdoulaye Bat waxee police ba ki démb la fa ñëw ah booba looy réew maa ngi fi constitution baa ngi lépp ngi fi président yaa ngi lépp ngi fi teewut Touba daa mel na meloon lañ fa doon aay ñu ko aay lañ fa doon tere jamono Cheikh Abdoulaye Mbacké rek la am mbokk yi bu ñu taxee bu fekkee ne combaan ci biir boo xam ne siwil euh, du du <laughs> du du du du atte morom civil wala du ko réglé kay ci benn côté mën nañ ko dégg nangu mën nañ ko nangu waaye ci benn côté ci Touba ah ñun xamuñu civil li ñu xam mooy ay taalibe yoo xam ne dañuy am ay jëwrin jëwrin yo suñ bi teg leen ne leen sàmmal leen ma lii ñuy sàmm lu mel noonu boo ko dégg daan ah kay waaye déedéet bu Touba ay jëwrin moo fay nekk yoo xam ne jamono depuis Cheikh Abdoulaye Bakk rek la am ndax dëkk bi yëkkatoon ay jamono teg ko ci loxol Baye Fall bi Sëriñ Amaan ñëwee nga xam ne moo jiite suñu Modou Lo Ngam jiite ko suñu Saliou Bakk jël ko teg ko ci loxom muy sàmm pour ñooñ du ñuy police du ñuy gendarmerie waaye ñëpp xam dañ ne li ñu def ci bi dëkk bi Touba fexe ba yi ñu aaye te danaa ci ñëw yi ñu aaye te danaa ci ñëw yooyu yëpp man man mën nañu wax ne gisatuñ ko Touba wala koy def da koy làq loolo ñi ñu tuddee ay civil ñoo ñoo rek morom siwilam ñooñu la ñoo ko doon def ba waxtu bi may wax ak yéen ba ni Xutbaatul Xaadim ñëwee gën a ànd ak ñoom ci liggéey bi ba yu baree bare bare gisatuñ ko Tuubaa léegi nag combaan bu ñëwee wax tamit ci biir waxam ne ah, euh, ñun kat euh, dafa am loi moo ñu tënk waaw loi boobu ci biir réew mi Sénégal ñëpp xam nañ ne euh, tux naan maanaam carte sol sol sol sol col koy koy yiwul Euh, maanaam football euh, euh, maanaam tëgg fecc ak yu mel ne yëpp yu yëpp loi ayu loi Sénégal ayu ndax dëkk boo dem daanaka mën nga fa def waaye lu tax Touba lu tax Touba kenn suñu faa tux di ko wane kenn suñu faa naan di ko wane kenn suñu faa football di ko di ko di ko di wala làmb wala sabar wala xeeti benn noonu loolu ñëpp xam nañ loi waaye pourquoi tuba avant combaan ñi nga xam bëgg démb la ñëw la ko jiitu lépp ci ba ci président de xam nañ lu mel no te kenn mus fi àddu ne loi euh, ayu euh, ayu ayu ko biir Tuubaa kon ko ay ko biir kon wax ji dafa am message bu ay code yoo xam ne faw ñi nga xam ne damay wax ne bëgg nañ Tuubaa fiit nañ ci Tuubaa te xam nañ Tuubaa démb ni muy dox ba tey ñu jéem ko dégloo foofu kon moom bu ñu ko dégloo ci li mu wax mooy wa ne kon police fekkee ne dañu leen a bàyyeeg tuba police bu ñu leen bàyyeeg Tuubaa Tuubaa dana mel ne dëkk yow UCAB FM fii ci Touba Ndam loolu doon kàddu yu sëriñ maam Cheikh Mbacke di njiital AIS doon rek àddu jëme ci wàllu coow li nga xam ne kon moo am ci diggante ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di police ak ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa Xuddamul Xadim ci ay xibaar yu jot nañ ko taataan sax lenn ci ay kilifay euh, police jamono ji rek ñu ngi leen di séntu ci dëkk bu sell bi di euh, Touba. incha allah danañu ko topp fu mu mujjee ñu mën leen ko eggee wax ci wàllum politique bi yoon dem ca njaareem foofee nag ñooy ñu wax ay républicain doon ñaar président Macky Sall doon na daje ca Ndoulo waxtaan wa nag Moustapha Ndiaye ma nga foon ñu teelwaat ko reportage. am ndaje mu mag la ñu amal file ci Ndoulo ñoom responsable politique yi bokk ci kuréel gii di les républicains tey jàppal tànk président Sall ñoom ñi la nag di xam ne li ñu bëgg rek mooy falaat président Macky Sall ci bopp réewum Sénégal Mara Diop di Haut Conseil économique social environnemental waaye jiite gile kuréel la ci Diourbel républicain Dame Diop du ngeen républicain Moustapha du la république parce que moment dañoo toll ci moment boo xam ne benn idée am benn bëgg-bëgg la am benn gis-gis la ñu am am muy tegaat ci président moom mi lee di Ousmane Mara Diop di xam ne ne jamono ji li seen mébét mooy fexe ba opposition bi dootuñu am ndam ci département bu Diourbel joxoon nañu comme ñu joxoon léegi kooku la ñu jëm muy lan lan lan fexe ba opposition au niveau du département de Diourbel du ñu fi am lépp lu mu jaral pour mu yàq ñu yàq lii ñu yor nanu jaral lu raw loolu pour ñu defar ko ñun te bu ci yeggee nag ah républicain yi nag ku leen laaj avance nag dootoo nelaw loolu moom dama koy yi yu département de Diourbel bi opposition bu leen laaj avance dootoo ndax lu mu la jël lu mu jaral leen ñoom ñu dugg ci commune yi li président defal lu ko raw dana nu ko jaral ñu dugg ci ci président. moom mi la di xam ne ne président Macky Sall liggéeyu am solo la amal fii ci biir réewum Sénégal rawatina ci département bu Diourbel. président def na ko pour sécurité familiale yi wax na ko léegi PIDC infrastructure yi yëpp tey boo jógee Ndiarène jëm ñu lool ña ngay jëm jëm ña ngay xott tey maanaam ba ñu koy defaraat autoroute Ila Touba nga wël ba di ko point yi nekk fii dama ne boo ko amee président bu mel ni président Macky Sall le séeréer bay wax na ko denc faroo seen président dañ koy denc faroo seen ndaje mi républicain yi doon amal file ci ndula nag bu weesoo Mara Diop ràññee nañ ci yeneen i kilifay politique ku ci demee ni Dame Diop Khalil fay Seydou Dione ak yeneen i kilifa yu nekk file ci biir département bu Diourbel Diourbel Mouhamadou Moustapha Ndiaye pour la rajo UCAB FM. rajo. UCAB FM. 103.7. Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñu koy sant euh, di ko gërëm mbokk yi ngeen ñu topp ci 103.5 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi kon ñu yegg si ak yéen ci ponk bi këmmal euh, xibaar yi li gën a fës yéen kay ñu leen koy nafaral. UCAB FM li gën a fës ci yéen kay. Papa Cheikh Mbaye. ndam li gayndey football tefes gi am daanaka yéen kaay yu bari moom la ñu xëyee kenn ku ci ne ak naga leen di kañe yéen kaay yu bëri xëy di xam ne nga xam ne kon ñooy football football lu ko si ñoom nag am nañu ndam juróom ñaareel bi yoon boo xam ne kon jël nañu ndam li ci bopp Afrique su naataango yi di Le Soleil xëy di xamal ndeke ci kaw Égypte la Sénégal amee ndam li yéen kaay bi ba tey di xam la rek ni kay lu jëm ci wàllu coupe d'Afrique des nations jëm ci beach soccer doon football plage ñoom nag ñii di gayndey Sénégal yi ñoom jëlati na ndam bi mooy ñeenti yoon yu yoo xam ne kon jël nañu ko l'observateur yéen kaay ne bu ko wàññi ndax boo boole lépp juróom ñaari yoon Sénégal jël na ndam li ci kaw ñi nga ne ko ñoom la ko doon joganteel yéen kaay bi xëy di xamal nekk mbégte dëggantaan lañ ci jotan nemeeku su naataango yi ba tey ñi nga xëy di xam ne rek ne njiitu réew na ci mbégteem le solo yéen kaay ba tey ca la ñuy des mooy seenu la moom itam am ndam ndax góol bi gën a xere xarañ moom la ñu ko jox juróom-ñaareel bi yoon bi tegaloo waaye tam ki nga xam ne kon moom moo di Seydina Mandione Mandione Diagne mi nga xam ne kon moom la ñu gis ne moo ci gën a xarañ ci wàllu jogante bi le soleil ñu koy nettali ba tey sunu naataango yi di l'observateur ña nga ca wàllu ba tey di xam ne rek ne luñ ci mën di nemmeeku ginnaaw bi nga xam ne kon gis nañu rek ne taxawaay bu am solo bu Afrique taxaw nañu ko sa ñoom waa Sénégal amati nañu ndam ñeent yoon bu tegaloo yéeni kaay bi xëy di xamal ne lii daanaka gulet ñu nemmeeku lu ne mel Sénégal lim fi def kenn defu ko ca ba tey Sud Quotidien ma nga ci juróom-ñaareelu ndam bi nga xam ne kon am lu ko ca di xam le ni bi yoon yu tegaloo ñu ànd ak Alseyni Ndiaye ñoom nag wane nañ seen eh, kaw ñi nga xam ne kon ñoom lañ doon xëccool yéenekaay bi xëy di xamal ndam dëggantaan lañ ca war lañ ca su naataango ba tey ña nga ca xëy di xamal rek ne luñ ci mën di nemeeku leneen loo xam ne kon fes na ci lii nga xam kon moom moo di yéenekaay bokk na taxawaay bu nemeeku nanu ko ci li nga xam ne kon moom moo di askan yu bari ci lu jëm ci wàllu ambiance boo xam ne kon doon na ab taxawaay bu nemeeku nanu ko ca fi mu nii gi coowal li nga xam ne kon moom moo di passeport diplomatique yi yéen kaay bi xëy di fàttali ne ay agence yoo xam ne kon ñoom ñu ngi bokk ay agent yoo xam ne kon ñu ngi bokk ci présidence de la république ak ministère des affaires étrangères ñu tuddoon leen ci sunu naataangoo yi moo xëy di xamal ne loolee ginnaaw boo koy xool attaque léegi bi tëdd nañ ci jamono ji ñi nga xam kon moom moo di Mamadou Lamine Ba nga xam kon moom moo nekk ci service président la république Assane Diom ak du gendarme bi nga xam ne kon moo nekkoon ci service bureau bu passeport yénn kaay bi moo xëy di xamal ñoom ak ñi nga xam ne kon ñoom lañ leen jàppandool bés bi le jour moo delsi nag ci seen ay mbir sunu naataangoo yi xëy di xamal ne kay ñi nga xam ne kon ñoom la tuddoon ci mbir mi aljuma ji kon la lañu taxaw ci fi nga xam kon moom moo di kanamu tribunal militaire ngir rek fesal li nga xam ne kon moom lañ tuumal yéenekaay bi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemmeeku seenu ëllëg nag ñu ngi ko fas yéene xam ne ki ñaar fukk ak juróom ci weeru ko novembre moom la ñuy séentu sunu naataangoo yi xëy di xamal ne a atte ba dogal ba ca la ñu koy fesale ñoom nag boo sàggantul atu kaso bu dañ leen ko daan wal fajiri quotidien ñu ko nettali ba tey yeneen yéenekaay ña nga ca na bëri na ca muy njëndum ngànnaay moo xam ne kon jëndaloon nañu ko ministère environnement ñu a ko jox waa Eaux et Forêts suñu naataango yi xëy di xamal ne kay lu lëndëm dëggantaan lan ca gis ci ñeent fukk ak yi nga xam ne ko ko ci mbir ma Sud Quotidien ñu koy nettali rek ne kay député bu opposition bi di ko jëpp politique yi Abbas Fall bokk ko ci ngir mën a leeral ci li nga xam ne kon moo ci coowal ñeent fukk ak juróomi milliards yi nga xam ne kon ñu koy tudd nguuru Sénégal rawatina ñaari Lamine si yu daanaka seen retour na ca lool ki nga xam ne kon nationale Sud Quotidien yéen kaay ne ñu koy yóbbu leetar boo xam ne kon bëgg rek li nga xam ne mbir mi ñu leeral ko ka ko leetar ba doon député bi bokk ci Yewwi Askan Wi Abbas Fall la bëgg rek mooy ki nga xam ne kon moo jëm ci wàll wi ñu mën koo ba tey xëy xamal rek ne jamono ji boo koy xool bu ñu ko ci taskatu xibaar investigation yi nga xam ne kon ay luñ bëtukat lañ ñoom nag bokk ci li nga xam ne kon moom moo di kuréel gi feesal lu ni mel ñoom nag neenoon lii boo koy xool daal xel tey ca lool ci anam bi ñu ko ca doxalee luñ ci mën di nemmeeku ki nga xam ne kon moom moo di député bi moom na lii nga xam ne kon moom moo tax moom rek mu bëgg rek li nga xam ne kon moom moo di contrat yi nga xam ne kon mën nañ ci amal ñu mën koo leeral ndax nee na la mu ca bëgg rek mooy askan wi xam dëgg-dëgg seenu moomeel fon la dugg vox populi yéene kay ko xëy duñu ko kon consortium international des journalistes d'investigation jot nañu ko caa génnee ba tey lu jëm ci def nañu ko ko jënd waaye tam ay pistolet semi automatique ak ay bali fetal yoo xam kon neen njëg la mu ngi toll si ñeent fukk ko juróom ci ay milliards loole lañ bëgg ñu leeral ko luñ ci mën di nemmee nga xam ne kon moo leen jaay ngànnaay ya loole nag moo gën a indi coow dëggantaan kii di levée commerciale broken bi nga xam ne kon doomi Niger gii di ko moom bi moo xamal ne na ñeneen ñoo xam ñu ngi koy wër muy waa Nigéria yéenekaay bi xëy di xamal ne jaay gam leen ko jaay nag loolee gën naa eh, yokk coow li ba tey sunu naataangoo yi xëy xamal ne bu ñu sukkoon sukkandikoo ci kii yore kàddu gouvernement bi Abdou Karim Fofana moom nag mi ngi xam le rek ne luñ ci mën di nemmeeku lu jëm ci wàllu ko proposition bi nga xam ne def na ko ngir indi commission d'enquête parlementaire ngir mën a leeral li nga xam ne kon moom moo di mbir mi loole nag nee na ab débat politicien la boo xam ne kon daanaka du mën a soppi dara ci mbir mi ak leeraay gi nga xam ne kon leer na ko ci ba tey yéen kaay bi xëy di xamal nag lan moo tax rek ñu dëkk rek singili boo xam njëndum gànnaay nii lañu ko yàgg di doxale te nag loole dafa doon secret défense moo tax nag lu bëri kenn du indi ci penc mi kii di Abdou Karim mooy xam lu nu mel moom mi jëriñ jëre wàllu ko njënd ak waaye tam jëm ci ci jiitu doon kàddu yi nga xam ne bu Touba doon na ko yëkkati ci rajo UCAB FM Dakaractu point com xëy di net ne ab chronique boo xam ne ko UCAP la ñu koy defee moom kii di maire ba ba mu ko dégg nag la naqarlu ne day weddi li nga xam ne kon wax na nañu ko ci fourniture rek na mu doxalee di leeral rek lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti million yi nga xam ne kon mairie bi da koy jënd ay jumtuwaay jàng doon ay fourniture Dakaractu point com xëy di xam la rek ne moom kii di maire ba ca saasa la woote ci rajo ba di ko weddi waaye nag weddi daanaka kàddoom dafa daanu ñi nga xam ne kon ñoom la ci lim ne jot nañu fourniture ñoom itam kenn ku ci nekk yëglu di weddi ba mu set wecc li nga xam ne kon maire ba wax na ko Dakar Actu point com moo ñu koy nettali ba tey Dakar Actu ma nga ca beneen mbir doon coow nekk ci dëkk bu sell bi mooy coow lu dox ci diggante xuddaamul xaddim ak ñii di waa police bu ndaamaatu bi nekk ci internet bi moo xëy di xamal ne kay fi na lool di ki nga xam kon moom moo di Modou Diop Diaw bi bi ñu ci tudd ak lan moo ci taxawaayam waaye tam waa police yéenekaay bi xëy di ko yaatal ba tey sunu naataangoo yi di dakaractu.com ña nga ca beneen ko mbir muy li nga xam ne kon moo xewoon ca ngay ak ki ñu fa faatoon yéenekaay bi xëy dunu a igfm sn xëy nanu di kañu ci li nga xam kon moom mooy Chine euh, buy defar xeetu emballage boo xam ne kon daloon nañu ni ki démb impact euh, Safa Group yéenekaay bi xëy di xam noonu la tudd di xam ne rek ne dalloo ga njiitu réew président Macky Sall moo fa ñëwoon ni ki démb nag rafetlu na lool taxawaay bu Youssou Ndour taxaw na ko ca igfm point sn xëy di nettali waat yi nga xam ne kon jot nañu ko fa taataan ni ki bëccëgu dem mbokk yi yéenekaay yango dég daje lëkk incha UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye xibaar yi mbokk yi sant leen gërëm leen loole faru son ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Saer Mbaye fare woon ci àddukaay gi ak ci machine bi laata ñuy tàggoo ñu fàtt leen li ci gënoon a fees la gënoon a fees ci xibaar yi bokk na ca rek lu soxal coow la amoon ca ngay ñi nga xam ne kon ñoom la ñu wax ne seen doom moo faat ñoom nag yëkkati nañ seen ay kàddu yi kàddu yi jéggalu waaye itam di sàkku ci ñi xam ko ñoom ñoo di nguur gi rek ñu gën a taxaw lii di sàmm si tax nag seen liggéey ñu mën ko amal ci li lépp rek ci ak dal nañ seen ay kàddu yi jéggal ko njaal di massaw ñi nga xam ne kon ñoom ñoo rek ñàkk waaye itam di woote jàmm ci mbir mi jot ngeen teewlu kàddu yi nga xam ne kon jot nañu ko ca fësal waa kër docteur hôpital bu ndaamaatu ñoom nag doon amal ab bés bu doon doon dalloo lu ma ñu yokk ci seen service gynécologie boobule mu doon rek lu ci octobre rose bi ñu doon waxtaanee lu jëm ci wàllu cancer ko bu ci du njurukaay ko wala cancer ween loolu nag ñuy soññi askan yu rawatina jigéen ñi ñu gën caa bàyyi xel jot ngeen a teewlu docteur Mamadou Sène lam ca jot leeral ci jotaayu xibaar yi coowal diggante police bu Ndamatu ak waa Xuddamul Xadim ñi nga xam ne kon ki di waa AES Serigne Mame Cheikh Mbacke nag moo nekk ca bopp moom nag ma nga yëkkati ay kàddoom ca damu gis ca wax ja mu ne ci genn wàll gi ànd na ci li nga xam ne kon kii di commissaire Thioban wax na ko jëm rek ci wàllu ko sa xoot war may ñi xam ñoom la ñuy teg loxo waaye tam bu ne rek luwaay yi ñoom ñoo bokk diggante réew meek dëkk bi mu ne nag loolee ab leneen lu mu ca dëxañ ca biir la jot ngeen teewlu kàddu yu fesal na ko ci biir jotaay kër xibaar yi wàllum politique nag républicain yi doon ñu ànd ak président Macky Sall nekk ca njaareem du loo Moustapha Ndiaye ci li gën a fes yéene kaay mbokk yi moo këmmal jotaay bi Pape Saer Mbaye fara woon ci àddukaay gi ak ci wàllu machine bi yéen askan mi ci déglu bi yeneen xibaar incha allahu rabbi guddi lay doon vingt heures rédaction bi dala ci joxaat daje sant ñëpp gërëm ñëpp di leen ñaanal di ko ñaanal suñu bopp bu raw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu defal kendalu jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu bàyyi leen ak suñu ay programme waxtaanu Serigne Sam Mbaye moo ci topp groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba cité Cheikh Ahmadou Bamba cité Cheikh Ahmadou Bamba cité Cheikh Ahmadou Bamba cité Cheikh Bamba